lu normal la parce que tey Barthélémy Dias su fekkoon ni deful woon nii sénégalais yi war nañ ko mën a euh, na laa mën a xeeb lu tax dañ koy xeeb parce que lu mel ni forum mondial de l'économie solidaire dakaar organisé ko àddina bi yëpp ñëw ngay nekk di da ngay da ngay du mu tuddati euh, président de la république ne day ñëw nga ne doo ko accueillir loolu jàpp naa ne c'est pas républicain te ku xam Barthélémy Dias xam ni que c'est un homme d'état quand il s'agit de posture politique wala d'opposant jàpp naa ne fii ci Sénégal kenn ëpp ko parce que depuis 2005 ba léegi constant toujours droit dans ses kenn muus ko wala kenn du muus laam-laamee ci opposition bii mu bokk ensuite si wax ngeen ci xalifa Sall ah man de dégguma ba léegi Khalifa Sall fu mu ne ka dem ci dialogue bi man dégguma moom na bokk rek non non non ba léegi Khalifa Sall fu mu waxee ni day dem ci xalifa Sall lu mu wax mooy day dem ci élection ya waaw tey Khalifa Sall jiite na plateforme bu ñuy wooyee taxaw Sénégal man jàpp naa ni Sénégal ba mu daj amagul plateforme boo xamante c'est aussi inclusif et participe ou même qui puisse permettre la participation de tout le monde ci ci Sénégal lu tax loolu dañoo wax waxu dialogue xalifa Sall ne yéen ñi ngeen xam ni yàlla nekk militants yi dem leen au niveau de la base ngeen mun a waxtaan base bu nekk mun a joxe xalaatam lu jëm ci dialogue bi ku nekk bu joxee xalaatam dinañ am position boo xamante moom la taxawu Sénégal di mën a indi parce qu'il faut aussi rappeler que taxawu Sénégal c'est pas juste le parti socialiste c'est disons un rassemblement de parti un rassemblement de mouvement donc nag xalaat ni benn leader day taxaw fële ne bon dañuy dem ci dialogue wala dañuy jékki-jékki c'est méconnaître Khalifa Sall. Khalifa Sall élection législative yi néew ñu woon na base bi dem waxtaani dañoo tëb a tëb rek ne euh, duñ dem ci élection législative yi euh, pourquoi boobu noonu Khalifa Sall démarqué wut ne non xaaral ma demandé sama base non non non non non non c'est différent hmm. parce que boo nee élection législative dañoo ne dañ dem waxtaani ci base beeg yooyu noonu loolu tey mosoo dégg ni ñu ne taxawu Sénégal. dem nañ ñoom en tant que entité ci élection législative. bien amul. te bii dañoo ne élection présidentielle taxaw Sénégal day am candidat muy xalifa Sall moom mii nga xam ne moom mooy candidat bi bu mm. ko neexoon parce que gis nañ ko fii fii am na parti yu bëri yoo xamante benn nit moo koy gérer fii nag moom moom nee na man gere wu ma dama ànd ak yéen pour ñu liggéey dem leen ngeen déglu ñeen ñëpp ngeen mun ma wax seen xalaat boo leen moo waxee seen bu ñu waxantee ñun ñëpp ñu waxtaan boobaa dinañ mun a génne position egguñu foofu nag bu ñu eggee foofu noonu ñii nga xam ne dañuy tëb di dal ñëpp boobaa war nañ mën a dal parce que bu ñu eggee bu taxaw Sénégal génnee position bu leer ne man de damay ñun de dañuy dem ci dialogue wala demuñu ci dialogue parce que tey boo nee dialogue mhm. peut-être bu ñu nee coordination euh, Pikine wala peut-être Tamba ñoom d'accord nañ tam waaw d'accord nañ pour dem ci dialogue man maa ngi Mermoz Sacré-Cœur man d'accord ma ci dialogue ah waaw